leen jaajëfal di leen sant si teewaay bi tey fii nii euh, ñu ànd ak président Ousmane Sonko pour ñu dalal leen waxtaan ak yéen man ñi nekk Amadou Sow ñu avocat laa bi ñu ñëpp jël kàddu ñu ko waral la dañu bokkoon ñun si li ñuy wax CODEF CODEF mooy comité de défense bi nga xam ne moo amoon lu mat 16 avocats loo xam ne ay jafe-jafe la woon bu juddu woon ci mbir mi rek mooy mbirum arrestation la ñu ñëw ñëwoon saytu leen toppatoo leen ak lépp loo xam ne war na si ñoom si wàllum défense ak suivi dossier assistance interpellation ba ci yeneen procédures yoo xam ni moom lañ def ba ngeen mujj génn loolu moo doon suñu si loolu tamit am na Serigne Bassirou Kër mi toog sama wet moom tamit si loolu la war jàpp ndax euh, boo xoolee ñoom si li nga xam ne yéen ñi ngeen yittewoo ci béréb yi ngeen nekkoon ñoom ñoo ko doon saytu muy seen mbirum. alimentation ak yooyu yëpp yeneen indi fa ak yeneen toppatoo lépp loolu soxla ñuy dox fi ñoom Bassirou Kébé mii ñoo ko doon def kon euh, ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën baax di leen wax ni nag li njëkk mooy dañ leen di euh, mbir mi ni mu amee ñëpp xam nañ li ko waral benn taxawaay la boo xam ne yéen ci cappaandaw ba ci tàmbali bi am ngeen ko taxawaay bi di ko waral loon tamit mooy fexe li nga xam ne yéen jàpp ngeen ni du dëgg du yoon li nga xam ne jaarul yoon bi yoon yoon bi ñu war bi mu war a jaar ñu fexe ngeen du ma ne ngeen bañ a am mais ngeen taxaw des seen kéem kàttan ba nga xam ni lu warul am amul loolu moo indi si euh, seen li ngeen dund yëpp ñu dund ko ak yéen di leen si masaw dëgg dëgg dëgg ndax xam ne ñi du yéene te tamit du suñu yéene du yéene président ay ay ndogal la ak ay ndogal yoo xam ni ah mën na ànd ak politique si yenn jamono moo tax euh, si turu président ak turu ko def maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat di leen masaw coono di masaw coono tam seen famille ndax tam xam nañu bi ngeen nekkee si biir ñu ñu nekkoon si biti tam waxtaan ak seen famille yi di leen dëfal kéem suñu kàttan di leen joxe information si yéen condition yi ngeen nekkee fi ngeen nekkee woon xamoon nañu métti na si ñoom kon tam masaw day jëm si yéen masaw day jëm tam seen ay waajur ak seen ay famille ah, loolu nag ngir bañ ko jël kàddu bi mu yàgg rek loolu laa bëggoon nuyoo leen ñu moom di leen masaw waa di leen jaajëfal bis topp nag dañuy jox président Ousmane Sonko mu waxtaan ak yéen ba ngeen jëlee bu baax jërëjëf maître Sow mbokk yi asalaamaaleykum ziara eh, di leen wax mbégte bu rëy rëy nga xam ne am nañ ko tey ci ndaje bi bu rëy rëy rëy eh, di leen massawu nag surtout di leen massawu bu baax a baax a baax amoon yitte trop ci ndaje bi ñu mën koo def donte des na ñenn ci ñoo xam ne ba léegi ñu si loxo dictature bi nga xam ne am na Sénégal muy ñaar fukk ak ñaar yi nga xam ne ñu ngi leen téye ba léegi Jurbel te dara taxul lu ab juge boo xam ne nee day fayantu moom ndax euh, kontaanul ci la ñu toj tribunal bi nekk Mbàkke moom it ñu ñu bàyyeekul ndakaaru ba léegi su ma juumul war nañoo mat ñeent ak ñi nga xam ne sikki coor ba léegi ñoom it bàyyeegul leen defe naa mat nañu ñett fii léegi ñooñu bàyyiwuñu leen nag mbir mi matul ci ñun parce que bu doon euh, benn ginaar boo xam ne dafa gis boppam ci suñu li ñuy liggéey ak li ñuy xeex bu bokk ci xeex bu ñu jàppoon sax suñ ko bàyyiwul matagul waxuma laa nag benn doomu aadama waaye ñu ne woon li am yàlla jàppale nañu ci ba ñu am ci ndam gu rëy baax nañu daje pour jaajëfal ñëpp massawu ñëpp félicité ñëpp encouragé ñëpp waaye it gën a waxtaan suñu biir ci li ñuy dëgmal ak fi ñu jëm ñuy gërëm it peuple Sénégal yëpp ndax peuple yëpp nag dañoo jóg taxaw ci loolu dafa commencé ci yéen ñi nga xam ne seen taxawaay bi ngeen ci taxaw am na fu mu leen yóbbu waaye damay dajale peuple yëpp remercier leen donte kuy def ngir boppam def ko waaye lu lu ñu mën a ne gulet parce que ni mu bindoo ak ni mu doxee defe naa mosuñu koo gis Sénégal kon dañuy war a dellu si sant yàlla féliciter peuple bi xam ne on a un grand peuple gërëm mbooleem seen kuy sénégalais parce que ñi génnul xeex sax toog nañu ñaan ñi seen doole mayul ñu génn xeex toog nañoo ñaan ñenn ñi méttitul nañ ko ba lekkatuñu woon ñii nelawatuñu woon loolu lépp yéeg nañ kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di dajale gërëm leen gërëm it ñi nga xam ne ci ay kuréel muy kuréel politique muy kuréel mouvement citoyen muy kuréel société civile muy sax kuréelu diine ndax gis nañu ay ñoo xam ne lañ leen xàmmee wala ñu ràññee daayira la walla ñu leen xàmmee wala ñu ràññee ay jànkatu alxuraan lañu wala nitu église lañu ñoom ñëpp taxaw nañu wax ci def ci ñaan ci ñu leen di gërëm bu baax. mënuñoo lim ñëpp nag ci ñooña waaye ñun ñëpp gis nañu taxawaay bi nga xam ne moo ci taxawaayu sëñ Mountakha Mbacké di xalif général des mourides taxaw ci taxawaay bu am solo te jàpp naa ni bu ñu mënee teew fii ñun ñëpp bokk na ci loxoom yuñ ci dugal ndax ala kulli xal moom moo ko fii ala kulli xaal moom Macky da leen doon bàyyi ci nii wala ci nële ak lu mun ci demee dafa leen doon bàyyi munoon na gën a nag mooy bàyyi gi dina jaar ci jaayante doole dina jaar ci deret bu tuuru ñaanuñu ko yàlla dina jaar peut ci bakkan bu rot moom mu jël ci responsabilité am ci crédibilité am yónni ay ndaw nen dama leen ñaan ngeen teg ci seen tànk waaye yow ma ci loo lii seen bébét yëkk leen ko teg suñu loxo ñu dañ ci def liñ ci war a def te keroog bi ay ndawam jógee fi àjjuma samedi ñu dellu rendre ko compte ca saasa la def li mu war a def woo ki mu war a wax ak moom ne ko nag ci poñ yi am na ci poñ yoo xam ne yu jàmp la bokk na ci ni ñu jàpp dañ leen bàyyi te defe naa loolu bokk na ci li andi résultat bi kon ñu ko ciy sant bu baax waaye di ko wax ni bi mu yónnee ay ndawam ñëw dañu wax wax ju am solo mooy ñaari nit bu ñuy xeex kuy àtte doo ñëw jàpp loxo kenn ci jamono jooju keneen ki moom yor ñaari loxoom di dóor te nag dafa mel ni moom Macky Sall ma ngay wëyal di dóor ndax gis nañ depuis bi ñu ñaanee ñu nangu seen génn yépp saaga la xaste la tëkkuwaate la ci ay mbir yoo xam ne taal na ay réew loolu ñu wax ko fii askan wi yëpp dégg ñun nag ñu ngi ne tekk jàpp suñu ñam parce que dañoo wax ni xaj bu bëri mbaw ñaare du matte kon nañ leen bàyyi rek ñu ne fi ñu ne di yoo ndax bi mbir mi tàngee ba tàng ñoom ñëpp kenn déggu leen ñu ci bëri sax génn nañu ndakaaru ñii yónnee nañu ne nañ ma dimbale rek waaye ñu xam ni man duma ci dara ay ndaw ñëw nañu intervenir kon bu mbir mi demee ba sëñ bi ñaan ba mbir mi calme xaju balcon yëpp ñeme génn nekk ci média yi di mbaw ñun nañu ne tecc rek xam bis bu mbir mi waree eggat feneen nag dinañu xam dëgg dëgg dëgg ñooy ñan yemuñu ci lool moom Macky Sall ndax bokk na ci poñ ñu tënkoon teg ko ci loxo kilifa gi bokk na ci poñ yooyu mooy élection yi nga xam ne moom dafa jàpp ni moom dong ko moom di ko fixé saa su ko neexee mu mel ni moom rek mooy acteur politique nañ ko def ci date ba jamono ji sëñ bi di wax ak moom di def médiation mu yolleeku dem moom jël décret signé ne man puus naa élection yi loolu du orma du respect te dafa mel ni nag moom ngay wéy di dóor Sénégal nag xamuñu ko fayu xamuñu ko dóor ko fayu lañu fa moo tax dafa leer dafa baax ñu leeral ko ba askan yëpp dégg ko ne moom ma ngay wéy di dóor ndax li waral muy def loolu tey suñu nangoo mu reporter élection bii ba deux mille vingt deux dégg naa xam nga suñu defee li ñu def pare yónni seen i ndaw ñu ne ci presse bi soit disant ay journalistes ñenn ñi ñenn ñi ay analystes naan. report ñetti weer rek garaaw déedéet reportu année moo garaw soo ko génnee 2021 yóbbu ko 2022 la cay topp mooy élection législative mu ñu ko def 2022 parce que mënuñu organiser ñaari élection ci at noonu lañ koy toppalee nag ba élection présidentielle ñun du ñuy dof Macky Sall gënuñoo yeewu kon loolu ñu wax ko ba ñëpp dégg ko ni moom ma ngay continuer di def di mat di dóor ñi ci war a wax nañ ci wax parce que buñ ci waxul ba fay jot ndax bii xawoon nañu rëcc lañ ci waroon def ba bu ñu egg si fii am na am na lu ci xaw a manqué ba ay bakkan rot bu ñu seetaatee ba ñu eggaat foofu nag damay ragal ni bii paa jafe-jafe dina am ndax moom bu amoon dégg-dégg sama avant dernière sorti dama ne bii mooy doon suñu xeex bu mujj walla suñu avant dernier paire de defe naa amul dégg-dégg des tuutee desoon rek mu nekk dernier paire bi te su ko nekkul ñun ñoo am sagesse su ne nañu taxaw kon na jàpp ni avant dernier bi ñuy ñaan yàlla dernier bi na doon deux mille vingt quatre mais dafay fekk moom mu nite def yëfu nit ndax moomul nit ñi moomul Sénégal te ëppul kenn fit ma dellu ne ko xeex bii de ñun mun nañ ci am mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye moom nguur gi la ci ñàkk su amoon dégg-dégg ci dina bataaxal bi ñu ko yónni kon soo gisee mu ubbi lii mu ubbee lii lu may wax askan wi yëpp dégguñu la ba ëllëg lu mun ci am du ñu ñoom ñooy taal fitna ci réew mi fitna kenn rek a koy taal ci réew mi moo ko mus a taal ci 9 ans yi te mu ngi tudd Macky bu loolu weesoo nag ñu dellu ci gën leen massaw leen dal métti na ndax nit yàlla ni mu ko bindee yàlla ni mu bindee nit daf ko bind mooñaale ko ak li ñuy wax liberté mooy nit ki mën a moom boppam mën a dem fi mu bëgg a dem mën a dox li mu bëgg a dox ci jamono ji mu ko bëgg a doxee mën a def li mu bëgg a def ci ni mu ko bëgg a defee ci kaw nag mu sàmmoonteeg lii nga xam ne mooy li yàlla def fii ëpp na waaye soo seetee yàlla ci boppam ak diine goo mën a jël le principe mooy liberté interdiction exception la le principe mooy liberté moo tax pour ñu ne leen lii interdit nañ ko il faut que mu am texte bu ko bind mu na ne lii arab na te doo génne aaya bu ne lii arab na mu na ne lii c'est illégal te génne woo texte bu ne lii c'est illégal moo tax ñu ne tout ce qui n'est pas interdit est permis donc principe ak fitra fitra mooy nit ki li nga xam ne essence am la noonu lañ ko mooñaale mooy liberté liberté nag ak euh, euh, ni ñu ko tuddee liberti libertinage bokkuñu libertinage def am ma frontière liberté mooy fii interdit yi commencé wala fi liberté commencé foofu la sa tax nit boo xañ liberté rek waxtu sax boo ko xañee nit liberté xañ nga ko réer réer rawatina nga mën a jël nit lu mat weer wala lu ëpp weer xañ ko liberté loolu métti na moo tax ñu leen di massaw te su doon da ngeen def war a tax ñu xañ leen liberté sax métti na ba tey waaye di ngeen am réconfort moral ne am ah, maa def mais ci xam ne jaay doole la ak tooñ da jël nit da loolu lu métti koy massaw ko massaw seen i jaboot parce que ñii yoroon nañ seen liggéey ku yor sa liggéey bokk xam nga koy salarié moom lu mel nii dal la xëy nga xëy weer bi dee nañ la versé mais ku yor sa liggéey bopp moo xam cantine boo yor la di jaay moo xam koo xam ne au jour le jour lay dund nga xëy ne ko xañ naa la liberté ab weer kooku lor nga ko ku ci amoon ay xeetu faj yooyu def lor nga ko ku ci a ku ci doon étudiant war a def examen ndax am na ci ñu xañ na ko ba examen boobu romb la kooku lor nga ko te loolu mooy injustice wax naa ko li gën a bon cim réew mooy injustice parce que injustice mooy maa yor doole dinaa la ko jaay ca jamono jooju sama njaboot def na lu gën a garaaw foofu ma làq leen sama gannaaw ne dara du leen topp loolu mooy injustice kon ñu leen koy masaw ci suñu tur ndax ak nu mun ci demee rek mbir mi ci man la doore di leen ko masawu ci turu li ñu bokk ñun kuréel gi muy parti parti politique di Pastef di leen ko masawu ci turu M2D muy aar suñu démocratie bële nga xam ne kuréel la boo xam ne bu ama am solo ay nit bokk ci ay organisation yoo xam ne wuute nañu waaye bi lii amee ñu ne ñun ñëpp nag gis nañu suñu démocratie ñu bëgg a faagaagal ñoom ñëpp ñu ñëw ànd taxaw ci xeex kon tey ñun amatul Pastef amatul diw li ñuy xeex yëpp dañ koo dugal ci cadre M2D boobu di leen masaw ci turu M2D di leen masaw ci turu askanu Sénégal yëpp nag parce que askanu Sénégal yëpp a participé ci xeex yenn leen ko masaw waaye li ci profité di wax ni ñëpp lañuy ñuy masaw parce que mbir mi am na un perdant perdant boobu mooy Sénégal moom rek a ñàkk ndax li am suñ doon natt ci yàqute ak ñàkk dafa am ay niveau ñàkk bi gën a métti mooy ñi ci ñàkk bàkkan mooy ñàkk bi gën a nga xam ne am nañ ci doom walla sët wala rakk wala lu beneen woon boo xam ne bakkanam rot na ci te ñu am ci nag fukk ak ñett fukk ak ñett loolu métti na ñaareelu ñàkk bi ci suñ koy jël ordre bi gën a métti mooy ñi nga xam ne gaañu nañ ci te ñoom it par ordre d'importance la ndax ñii ñàkk nañ ci ab cër moo xam loxo bu ñu amputé moo xam tànk bu ñu dagg moo xam bët boo ñàkk et cetera et cetera ñooñu it métti na trop ñu leen koy masawu ñetteel mooy ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen liberté man mii sax xam naa cee ñam tuuti waaye xam naa ni condition yi ma ko dundee ak diir gi ma ko dund bokkul ak yéen condition yi ñu ko dundee ak diir gi ngeen ko dundee ñii di sama sécurité am na ñu ci ñam tuuti waaye yéen ñii yéen a ci gën a méttile waaye ñàkk it suñ ko doon natt ba léegi eh, ñi ñi ci ciy ñàkk ci seen alal wala seen koom bëri na ñu leen di masaw bu baax moo xam oto bu ñu yàq moo xam kër gu ñu taal moo xam euh, nu mu ci magasin yi ñu lakk loolu nag métti na ci ñoom ñoo ñu ñàkk seen alal waaye yàqute la goo xam ne ci senegal ay milliards yi milliards yoo xam ne koom-koomu réew mi ñàkk na ko ci réew moo xam ne ndóol na ñàkk na ba noppi kon loolu it du lu ñuy neenal lu rëy rëy la ñàkk gi it ba léegi ci wàllu koom parce que liñ fi taal ci lacrymogène te ne nañ ne lacrymogène yooyu benn bu nekk diggante soixante quinze mille francs la jëm quatre vingt mille francs boo ci taalee cent huit millions dem na te ñu taal ci ay millions loolu ñaata la ci ay milliards yoo xam ne ci suñu lempo la ñun Sénégal kenn xamul nu mu toll kon baax na ku ñu dénk réew ngay responsable balaa ngay teg réew mi ci condition fitna. ba lii lépp ñu enregistré ko fi tey ci ñàkk war ngaa xoolaat sa bopp te lépp dara waral ko lu dul foog di yow rek ko war a toog ci réew mi kenn du la ne d'accord kenn du ne ànduma ak yow c'est de l'irresponsabilité te loolu lu kenn ku dul moom mii nga xam ne jox nañu ko réew mi kon lu ñuy naqarlu la di ko masawu askanu Sénégal suñ doon lim ñàkk yi bëri na trop ba ci image yu Sénégal au plan international réew yu baax yépp tal nañu leneen fi ne nii lu dul wax yu ñàkk fay day ba muy taal réew ci jamono euh, pandémie li la wane ni coup bi ñu doon préparé moo taxoon ñu def lii lépp ba def ay couvre-feu ak ay yooyu yëpp tey du dindi nañ ko est-ce que pandémie dafa wàññeeku lan moo war a tax ñu dindi ko parce que dañ koo nasa nasa nasa nas pour rek fexe ba tënk Sénégalais ba kenn du ñeme wax kenn du ñeme moo tax ngàlle nga ngàcc gàllaam gàllaama ngàcce gàlla gàllaama askanu Sénégal parce que dañu wane une fois plus qu'on est un grand peuple un très grand peuple qui mérite de très grands dirigeants et pas ce qu'on a ici askanu Sénégal mérite na loolu di wax tamit ni lii it am nañ ci jàngat ah ñi ngi sant yàlla de ndax jàngat bi ci njëkk mooy yàgg nañoo xam ni am na ñu liggéey suñu diggante ak askan wi te sexaluñu leen suukar distribué wuñu xaalis gis ngeen bi mbir mi jeexee ba léegi ba xam nga taw buy taw janax jeeg sa ndax seeg ñoom ñëpp dañuy dem làqatu bu taw bi jeexee ñu ne tëll génn mooy bi mbir mi tàngee ñoom ñëpp dañu làqatu ji fi mu ne nii ñoom ñëpp génn nañu waaye lu ñu génnee xaalis bu dul jeex wër di ko wasaare ci àll beeg ci média yeeg fu ne pour rek jàpp wa wane ni ñoom ñi ngi fi la ñuy wër yépp dañu génne ci xaalis jamono ji ay milliards pour rek jëndaat sénégalais ñun mosuñoo sexal benn sénégalais suukar amuñu dërëm bu ñuy joxe suñu nit ñi dajalalul sax jox ñu waaye askan wi wane nañ ñu ni gëm-gëm gi ñu am ci réew mi ak bëgg gi ñu am ci réew mi ak message bi nga xam ne ci dëgg lañ ko teg ak ci patriotisme ndekete askan bi dugg na seen bopp moo tax malgré seeni milliards yu ñuy war di wasaare suñu woote woon ne kaay leen xeexal ñu kenn du génn xeexal leen fii dañuy fi nekk amul ku ma mus a jox fukki dërëm man yéenay cotiser sax naan ñoo ko def ci parti wala ñu ngi dimbale présidence kon loolu jàngat bu njëkk la lañ ci war a mën a tirer comme leçon mooy fa ñu tegoon suñu tànk nañ ko gën a teg foofu buñ doon góorlu benn nañ ko def sant parce que réew mi am na yaakaar ci ñun te waruñoo décevoir réew mi ni ma waree la waree kenn ku ne ci yéen ndax njiit mu baax dafay ànd ak àndandoo yu baax askan wu baax ñu ànd ñu ñëpp defar réew mais bu dee moom rek lañuy xaar mbaax ci moom mënul defar réew ñaareelu jàngat bu am solo it mooy la liggéey may nañu ñu toll fii ñu toll mooy nu sommes un très grand parti politique alhamdulilah te du parti boo xam ne intérêt moo ñu boole du parti boo xam ne ay calcul moo ñu boole kuréel boo gis nag mun na am ay problème de temps en temps ay nit a mel noonu ku nekk day ñëw ak jikkoom ku nekk ñëw gis a gis-gisam waaye ñi fi nekk ñëpp ay patriote lañu Sénégal rek moo leen ñor bokkuñu ay waaso bokkuñu ay diine bokkuñu ay région waaye tey kenn ku nekk pare na pour jox bakkanam pour projet bi sotti loolu chance la pour le Sénégal chance la pour l'Afrique loolu moo jur tey ci doole dëgg dëgg dëgg engagement rek boo xam ne gëm-gëm la gëw mu ni am na ku ñu ëpp doole ci biir Sénégal du mérite nag nañ ko sant yàlla ndax ay nit jiitu nañ ñu gënoon ñoo dëggu gën ñoo am profil te amuñu loolu yàlla nag li may def moom rek xam li tax mu def ko li wane ni on est un grand parti may profité gërëm leen tey amul kenn koo xam ne tey ci yéen ñi ñëpp te ñu jàpp bëri na de war naa ma téeméer ndax fii ñi mën a ñëw rek a ñëw ñi ñu bàyyeegum ñi ñu bàyyeegul ñëwuñu ñeneen Casamance ñëwuñu donc nu mu tuuti tuuti ëppoon na téeméer ñi ñu jàpp amul kenn koo xam ne jàpp nañ ko te taxawuñu sa wet jël suñu avocat yi ma leen di gërëm di leen sant ñoom maître Sow ñoom maître euh, njaay ñoom maître Tall maître Kayosi ñoom maître Diagne ñu ñëw taxaw seen wet buñ leen di déglu ba mbir mi kii ba bi ngeen di nekk prison ñuy ñëw di leen seet si suñu jàppoon euh, euh, mille personnes it bu soobee yàlla dinañ taxaw te ñii ñëpp nag fukki dërëm laajuñu ko parce que parti bi la ñu gëm par conviction la ñu bokk ci xeex loolu ñu koy sant yàlla wane na ni parti bu mag lañu ndax nit yàgg naa jaf nekk jafe-jafe su ma lutikoo di gis parti ñaareel bi wane ni parti bu mag lañu mooy lépp li nga xam ne waroon na ci jàppale nit ñi ba jàppale sax seen i njaboot lañ ci mën taxaw nañ def moom ñii Bassirou Kébé defe naa moo doon yor lépp lu jëm ci andi ay lekk ay naan ay lu ngeen sàngoo nangam la ñëw te noonu ñu ko defee ci ñi ñu jàpp noonu lañ ko defee ci ñi faatu noonu lañ ko defee ci euh, ñi gaañu donc ñëpp nag jàpp ci waa diaspora waa diaspora mention spéciale ñu sonn ci trop di dajale seen xaalis di envoyé di def seen mën-mën waa biir réew mi les bonnes volontés kon loolu war na ni parti bu mag lañu buñ ko fàtte mukk nag dañu gën a jàppante waaye ñetteel bi nga xam ne jàngat la mooy nañu fexe ba parti bii ak projet bii ñu am bu mu doon mbirum benn nit su ngeen gisee li yëpp di am ñoom dañuy toog ne mbir mi de dafa mel ni am na doole waaye bu ñu fexee ba faagagal Sonko mbir ma jeex projet bi dafa dépassé Sonko naam Sonko am na ci solo ndax quoi qu'on dise moom mooy figure morale bi moom mooy porte-voix bi waaye war nañoo liggéey ñu ngi ko doon liggéey depuis bi ba léegi waaye war nañ koo gën a yokk ba tey ñu xam ni projet bi kenn mënu koo faagaagal te loolu message la boo xam ne ñoom lañ koy waxal waaye ñi ne seen gannaaw ngemb leen te nekk feneen mooy yàgg nañoo faagaagal ay projet yoo xam ne pour dignité Afrique la pour yi dàgg bu mu jaam la waaye bii moom bu soobee yàlla dañ ko faagaagal bu Sonko génnoon fii ñu dóor ko balu fital waaye wala suñu complot woon mu sotti ba ñu ne tëj nañ ko tey la projet bi di gën a am doole bu soobee yàlla kon lool it ci njàngat yi la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen masawu di masawu seeni famille ñi fi mun a teew ñoo fi teew maa ngi fàtte ci loo bi suñu jigéen ñooñu nga xam ne ñoom it xawloon lañu sonnal nu ngi tudd tudd lu mat fukki fan rek ci bëgg a toroxal nit parce que affaire bi bëgg a métital nit ñi loolu rek la woon te dara lu dul procureur Bassirou bi nga xam ne waratul woon nekk procureur Sénégal ndax def na juróomi at sax nit mën ngaa bon mel lu la neex mais dafa am loo xam ne bu ci nit tollee war nañu xoolaat jàpp ay jigéen ñii dañoo feebar ñii jabet ñii lii ñii lii nga tëj leen ci condition yoo xam ne bañ ne mer gàddu sax duñ leen ko àndi nañu tëdd ci karo bi di leen pamti pamti andi leen ba ngoon bàyyi leen ci kaab bi duñ leen déglu nañu dellu retour xam nga lan retour de parquet yu affaire SOAS yooyu c'est-à-dire sax mu waratul am ci réew mi loolu droit da ko dépassé lu illégal la abus droit jàpp nit di ko pamti pam te lépp nag benn nit rek ñu jox ko sañ-sañ boobu muy fëgg dënd foog moom moom Sénégal yi moo tax nañu moytu injustice baaxul fu muy yóbbu nit ñi ku foog ni am nga doole xamal ni tous yoroo doole yàlla rek ko yor kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois ñi fi nekk muy wundu siise wànd siise wànd waaw wànd moom leer nga torop ci ko jóge fële ak leer si rafet ah dégg naa rek jaaxal ngeen gars yi ndax war ngeen fa moral ak mental boo xam ne macha allah loolooy Pastef waaw Noa Sambu Noa Sambu Mohamed Thiam waaw Mohamed moom moom moom def naa lim lim ci daj xaw naa truc ndax njëkk nañ koo gaañ le 8 sama kër le 8 février xawoon nañ ko gaañ gaañ bu métti ñi ñëwaat lii dal ko kon ñu ngi lay masaw bu baax joomaay Diafate Diomaye Diafate président waaw président kaso bi la ko président waaw président léegi naa kaso bi président bi waaw chaque jour léegi léegi da ngay da ngay kii da ngay si da normal Omar Diouf Omar Diouf Omar Diouf moom dégg naa cere la fa newoon cere saa ah, cere suba ngoon ah Ousseynou Dia Ousseynou Dia moom andi nañ la fa ay nit mooy car ñaata Abdou Sarr. ah Masson nga. ah moom sama artisan lañ ko jàpp. moom kon le huit lañ ko jàpp. moom def na presque deux mois. oui oui quarante cinq jours. quarante cinq jours. Marcel Ousmane Diop. président chef. waaw Ousmane nag Ousmane nag ñetti at bi ñetti at bi moom bokkul ak affaire ah dégg dégg naa rek moo ko doon ak ak gàllankoor yi. waaw tàmm na ko rek tàmm na ko rek xam nga foofu ah Abdoulaye Diène Abdoulaye Diène. suñu grand mouvement. yéen waa Abdoulaye vraiment sa waay il est exceptionnel. macha allah toujours courant. waaw Abdoulaye Diène. Mohamed moom dégg naa moom bokk na ci ñuy torturer foofu. def ko yu métti métti. yooyu itam dañu wax ni ñun duñ ko bàyyi mu def ñu ciy liggéey nag ak organisation yi liggéey ci loolu yëpp. parce que. jamono jii ñu toll ñu jàpp ay nit ñu deful dara leen torturer dafa war a jot ci réew mi Mamadou Konté Mamadou Konté ah ah sa frère ah ah ko ah, Omar teg yaay si président à l'appel ah. Cheikh Bassirou Sonn Sané Sané waaw yaa bëgg wax alhamdulilah Sané waaw lu mu wax Feu. Abdoulaye Faye. ah ok yéen ñaar ñi daal am na lu leer a sën. bu paree ngeen ngeen ngeen ñëw ensemble. waaw ah, ñoo bokk département de ñoo bokk chambre. waaw sànq mu ne ma yabal na ko. Ah, Seeku Palmarin. Palmarin. Lapa Touré. Lapa Touré. Maintenant, je parle à la personne, maintenant c'est Mor Dia moom dañ ma ne dellu na Maroc ndax soxnaam fa la. ah ah l'appel. su ko dellu si. ah semaine prochaine. parce que parce que Amadou Dee professeur Amadou Dee xam nga jàmm ay professeur di leen jàngal say say élèves toog di xaar loolu rafetul Pape Malick Seck Pape Malick Seck macha allah Pape Malick waaw Baba Bada Ndiaye président à la dara jaay moo ak maam Dame Lo ñoo nekk Touba waaw maam Dame. président maam Dame Lo. imam chambre 3. waaw waaye tey moom tey moom moom cravate rek ak ceinture bi. waaw waaw nag xam naa ni gars yi amoon nañu ay ay prisonniers yu bëgg at la alors Amadou Sow. a ah, yow da ngeen am lu soo saabu kaa di Amadou Sow. chef de chambre. ah chef de chambre. ah, ah wuri bari. wuri. ah yow. bu am jom nag. j'espère que maa ngi war heureusement bëri bëri ku am jom ku am jom dañ koy paquet a a a validé macha lii nag mooy ñi fi ne. Edouard Diatta. waaw hmm. ah. Edouard. mais Edouard yaa ngi woon ci biir. te gars yi gars yi daal di dégg Edouard. ok waaw. Abdou Khadre Konté. ah. ah bàyyi loolu waaw. Bueno, pues va a comenzar la masa. Ousseynou Dia. Ousseynou Dia woo naa ko. lii bokkul ak ma wax ko léegi ñi nga xam ne ba léegi bàyyeeguñ leen. bokkul ak ñi ñu bàyyeegul Casamance sama nga fay waaj dem. buñ demee nañ def foofu luñ fa li ñuy def fii rek ci njaaleeg ci dajeeg ñi gaañoo ñoom seen waaye li ma gën a neex ci lii mooy weddi bi gën a gaaw ci weddi yi mu ngi nii liste bi ñu ci ëpp defe naa ay alpulaar lañu ñu ci ëpp ah eh, ñoom bu seenu ñoom ñoom ñoom ñoom eh, nu mu tudd Amadou Dee ñoom Sow Amadou Sow wuri bari et cetera et cetera séeréer si tegu ci. sama sama sama jaam ndaw yi. ah naa li ci gën a tuuti mooy joolaa ñaari joolaa laa ci gis. lii. Mansour Faye. Mansour Faye. Mansour Faye waaye yow moo war a ñëw ci sa tur bi. <laughs> Mansour Mansour Faye. ah rek tontu la moo tax am na yu wax dof yoo xam ne jarul ñu ciy perte suñu temps ñu nit bu amatul lu muy wax nit bu daanu ci saret moo nekk ci waxu ñàkk fay doy Sénégal dafa dépassé loolu bu yàgg fii lébu yaa ngi fi ñoom dooy ak yooyu bari nañ fi sekk ak ñoom seen eh, pël a ngi fi tukulóor a ngi fi wolof a ngi fi joolaa ngi fi mankaa ngi fi lépp a ngi fi li ñu boole mooy Sénégal ñun Sénégal rek lañu ñu yàlla ba muy tànn Sénégal pour kenn ku ne ci ñun bu ko neexoon tey maam daam nii Japon lay judd tuddee sing sing xaw ma lan mais moo ko tànnal Sénégal tàmmal ko tànnal ko tuuba jël keneen tànnal ko Bounkiling waaye ne leen yéen ñépp nag yenn bokk destin kenn mënul dem bàyyi morom day baax pour ñépp wala mu jaxasoo pour ñépp loolu bu ñu ko kenn yàqal xam na ñoo xam ne nag xam nañ ni ñàkk nañu ba noppi nu ñuy def ba xajamal cere gi pare nañu pour taal réew mi pour rek bañ fee bàyyi lu baax loolu mooy mbon parce que nag ni ñu def ba ba yow nga jot am réew moo xam ne waasoo amu fi euh, waxu diine amu fi waxu âge amu fi soo doon ko baax noonu ngay def ba sooy dem nga ba fi loolu kon loolu ñun ñëpp nañu am hauteur bu ñu fexe ba dugal ñu ci loolu fii ñi fi nekk diine yëpp a ngi fi tarixe yëpp a ngi fi noonu lañu boolee diine yëpp jox leen cër noonu la ñu jëlee tarixa yëpp jox leen cër def leen suñuy tarixa kon bu ñu kenn dugal ci seen wax yooyu nga xam ne amul bopp amul génn te la ñuy def nag seen bopp lay mujj kon ñu ngi leen di gërëm une fois de plus dañu ne woon dinañ jox ñenn ci yéen parce que dañoo am yeneen programme yaa sama xarit sama frère Déthié Fall nga xam ne day lancé mouvement am tey heureusement fii la ñu invité woon ñu insister kon dañ leen jox kàddu gi ngeen sànni ci dara yi nit waaye di leen gën a tàllal loxo la ñuy xeex jege na la tax ndaw ñi gëm ñu ba tey ñu génn yaakaar gi ñu am ci ñun ñu soppi réew mi jaare fi soppi Afrique jege na bi cax bu bëri bi yëpp nag mooy sentir nañu ñoom ni nii jege na te bëgguñu mu am kon nañu gën a dëgër tey nañu gën a renforcer wu def ko ngir suñu bopp waaye def ko ngir suñuy doom ak suñuy sët waaye def ko muy jaamu yàlla suñu diggante suñu borom ñu ngi leen di gërëm sant maître Sow. waaw jërëjëf président ñu ngi lay euh, gannaaw loolu dañuy jox euh, ñaari représentant ci yéen defe naa Ousmane Diop la moom mooy vraiment moo doon soutien moral bi. Euh, mooy seen doyen tamit ndax vraiment gis nañ ni mu nekkee nag ak yéen ak ni ngeen jegantee ak lien yi ngeen gisee foofu noonu bokk xeex bi moo ko bokk bokk liggéey bi ak bokk gëm-gëm. defe naa doyen Ousmane Diop lañu jox kàddu bi bu si tegoo bu ñu bu jëlee kàddu ba pare ñu jox kàddu Dieye Dieye waaw ñu jox Abdoulaye Diène waaw ñu jox kàddu Abdoulaye Diène tamit muy ñaari kàddu rek ñu jéem a xool ñu ñu tënkee ndax président tamit ñu ngi koy xaar fële waaw bisimilah Diop waaw euh, donc euh, salaamaaleykum. Euh, donc président euh, bu ñu nuyoo mbooloo bi euh, kàddu yi may jël ma koy jël ci turu ñi nga xam ni mooy ñi ñu jàpp ni sa laay parce que comme au départ 43 lañ woon mais à l'arrivée yeneen mbokk yi ñi nga xam ni ñu ngi gërëm yàlla encore bi ñu tëjee fii xamante encore. ñu jàppoon nañ ci yeneen yeneen côté yi ñu jël a daje fii ñu jël kàddu gi teg ko ci sama loxo du sama dara du sama dara mais euh, ñoom ñoo am seenu mbaax ay taalibe bi ñu am taalibe ñu ngi nii ñaari ngi ne ñoo xam ne nii xale bu leen Ousseynou Dia ak euh, Omar Diouf Mbale li ma lay nettali Pape Malick Seck moom moo indi kaamil bi ci biir ci biir kaso bi waxuma ci biir kaso bi mais en lien de détention fa ñu nekk ci garde à mhm. moo fa mu indee ay xaaj ñu war a jàng histoire dama nekk dinaa leen ko nettali ñu war a jàng kaam bi ci biir ñaan yàlla mu musal ñu bi ñu ñëwee ñu ne ci suratu Taaha dafa manqué ba jëm suuf ñu séddale kaam bi di ko jàng ma ne loolu da ñu jaaxal parce que man mënumaa tari suratu Taaha ba ci suuf ñaari xale yële na le ñoom mën nañ koo tari ñu ne ñu ne ñoom mën nañoo tari yor ñu yor ñu jukki yi ñoom mën nañu ñoo ko wax rek wala ñoo commencé dafa mën na si laaj ma taxawaay bi la Qur'an parce di kàddu mu ma mën naa ko tari ba naas ñaar ñoo ñoo ko def. macha allah ay taal yu bëri ñu ñu jàng ñoom ak ñoom ñi ñu pare moo ko yoroon kii Mamadou Bey daal di jàng xatma bi mu imam bi mu jàng xatma bi foofu ñu ñaan yàlla yàlla nag dimbaliwul parce que ñun ñaanal ñoo suñu bopp pour ñu yàlla musal la lañ doon ñaan. lañ doon ñaanal ñaanu ñoon seen bopp de dañ doon wax ni ne la yàlla musal. Mhm. ñu ngi xale yu baax xale yu am am am am pas-pas man li ma ci nekk woon lu mu doon doon jéem a remonter moral kese parce que dama leen a mag ñenn ñi naa leen nag ñenn ñi ma mat leen bàyyi. loolu laa ci nekk woon def li ñu war mais ñoom yow lañ doon ñaanal yàlla nga yàlla yàlla na yàlla muccal yàlla na yàlla musal Sénégal lañ doon def foofu ba pare nag. yar bi dafa fekk foo xam ne fii man mosuma fóot Nowa Samb mii mooy fóot Ami Père Dieye Ami Père Ousmane am ngeen yére yoo leen war a fóot ñoom ñooy fóot ñoom ñooy toppatoo seen mag di toppatoo seen i baay xale yi ñoo yaru président xale yi ñoo neex a nekk ñun li ñu ñu def foofu bu subaa ñu commencé waat ko si c'était à remettre ñëpp ñu ngi seen kàddu lañ ma jox si c'était à remettre ils encore bu ñu ñu rey rek bu ñu ñu rey ils de libérer le Sénégal ci seen kàddu laa waxee li ma ciy wax jarul guddal lii la ay xale ngi nii yoo xam ne ñu mat a fonk ñoo xam ne ñu gëm nañ projet bi nekk yàlla dina ko sotti di gërëm nag parce que parce que quand on dit que Pastef est un grand parti man j'ai roulé ma bosse te man xam naa ni Pastef est un grand parti maintenant bi man maa la ko wax Fatima Mbengue tey jii. ku fi sa jabar tollu diggante Fatima Mbengue lay tudd mu nekk jigéen ba muy leer nañ ñu ngi nii ñoom ñoo ma ko wax de. ci jabar bi daan daan tollu jigéen buy jigéen moo ko wax de moom moo ko déclaré buy jigéen mu tudd Fatima Mbengue ñu ñoo ko wax parce que Fatima Mbengue jooyloo la ñu bëri ñoo xam dañoo newoon ci biir da leen toppatoo ñun jooyuñu dara dara dara jooyuñu ko dara bu yemoo condition de détention yi mel nu mu doon mais ñun jooy ñu naan parce que Pastef daf ñoo toppatoo daf ñoo toppatoo à l'encadrement judiciaire mais ci toppatoo bi mais amee xale yee fu ñu jógee àll ba lu ñu jógee a xam ne croissant loolu la leen Pastef toppatoo di leen jox ay croissant au jour bi mais bu ñu liggéey di tëjee ñu leen ay chawal yooyu ñu defal lu mu wax ba pare j'ai dit que xool leen à débloqué comme pour entretenir leen di ngeen nekkee maintenant en détention président et gàcce ngalaama yéen aussi gàcce ngalaama yéen l'encadrement de Pastef gàcce ngalaama yéen loolu la ñuy waxoon ne naa leen ko àggale ba mu egsi fi yéen Sénégal bii ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye am ngeen ci pas-pas je déclare encore que ni Pastef est un grand traversé mais temps bi nga xam ne moom la Pastef ba installé aussi li ñu am keneen amu keneen keneen amu donc gënu guddal mais lii la woon ñi nga xam ni say taalibe lañu woon taalibe Pastef lañu woon ñu jël leen dugal leen dans les lieux de détention mm. xale yu yaroo bi nii mm. xale yu am discipline xale yu gëm li ñuy def nga mm. xam ñu projet bi ñoom lañ koy porté lii laa mën lu ma ci wax lén dé sant Bassirou Keita parce que bu kenn meegul moom moo tax Bassirou Kébé di koy remercier bu baax daf ñu doon indil ay lekk ba nga xam ne policiers yi doon dem couvre feu dañu ñëw nañu yéen waa Pastef dimbaleen ñu may reer maa leen doon jox ay pomme di leen jox ay orange di leen jox ay hamburger ay aw ak ay shawarma wala na ma loolu ñu ngi koy remercier di leen remercier yéen di la sant yow bu baax parce que politique bi ñu doon gis Sénégal mooy kañ même boo génnee di xeex man en 2012 bi Macky Sall maa ngi woon place de l'Obélisque ñun jàppoon ñëpp jaawul kenn kenn wutal leen avocat booy dañ leen tëj ay 5 ans yow nag ku ñëw avocat fu ñu dem ñun bu ñu demee dikk avocat yi ñooñu jiitu nañu président moo nañu dem leen jiitu foofu xa gars yi bala ñoo ñëw kon dañ lay remercier parce que loolu mosuñ ko fi gis ñu lay wax ne la projet bii nga xam ne jël nga ko duñ ci ma sa échec parce lu ñu daloon à 17 décembre 62 ñu jàpp Mamadou Diaw wala Jooji Ndiaye Alioune Sall Alioune Tall Ibrahima Sarr loolu du am wala suñu bakkan du ko fekk ñu lay wax ne engagement yi ñu amoon tey lañ ko gën a am ragaluñu mandat dépôt ragaluñu dara loolu maa ngi koy wax ci tur salaamaaleykum euh, li ma doon tenir rek peut-être ñu def 30 secondes de silence par rapport ak ñi fi jóge waaw ah, peut-être dañuy jóg. <laughs> sante nañ ko yàlla ndax vraiment euh, am na lu mu yokk si ñun même bu ñu jàppee ni amoon nañu expérience euh, comme Père Ousmane Diop ni mu ko waxee rek ñi fa ñëwoon teewal fa Pastef ak euh, parti yi nga xam ni ñoo fi nekk mouvement panafricain ak yëpp parce que man je m'identifie si ñooñu noonu mouvement panafricain yi peut être ñoom benn tale pratiquement miin nañ ma dañoo nekkoon ci benn dynamique di xeex ba tase ku mel ni Ousmane Sonko ñu bokk na ay idéal bokk lu ñuy xeex moo tax naturellement tous les paraafricains dañuy euh, koy jàppale. campagne électorale bi passé laa mos a jël fiche su ñëw fii jël si fiche yi dugg car rapide dem dernière euh, meeting am euh, avant dernier je pense Assane Djigo ma dugg ci kaar yi naan maire yi voté leen kii xàmmee leen kii boo demee voté leen ko maa ngi doo ko defal lii politicien am parce que gis naa ci moom véracité gis naa ci moom. dëggu gis naa ci moom diine gis naa ci moom loo xam ni valeur yi ñu bëgg mu sax Sénégal te gii mi ngi wax keroog y a quelque chose d'extraordinaire qui est en de se te bu ñu nangu ñu faagaagal ko dañuy taxaw temm fu justice nekk bu ko bu amul sikki sàkka bul sax xeel ñaar taxawal nga xeex injustice taxawal ñu taxawal Sénégal taxawal Afrique bu ñu gëmloo ni lu impossible la dañoo yàgg nax li ñu gëlëmal di ñu tourner autour du pot mais ces personnes la dañoo war a dem droit au but amatul ragal on parle plus de Macky Sall de truc de kii dañu am benn projet dañuy dem vers loolu. Euh, tout de loolu weesoo yi métti woon na benn instant mais booy yi dañoo dëgër dañoo exemplaire chambre bu ñu nekk ñooy bale ñooy fobee rek ñoo ñuy fóotal di influence ñeneen booy yi nga xam ni ay. drogue moo leen fa dugal ay bandi bandi ay yooyu dañoo ñëw ba am benn admiration par rapport ak ni ñuy doxalee heure julli ñooy njëkk a jàpp noddu man mii noddu naa ko ñu julli jiite naa ko ñu julli ak père Ousmane Diop chaque jour mi ngi ci kaamilam di di di jukki Omar Diouf Amadou Deye les Ousseynou c'est un boo xam ne ñi ngi koy construire te xamuñu ko sax ñoom dugal nañu kaso mais dafa mel ni mission lañ ñu doon jox waaw di gërëm nag les avocats Amadou Sow maître Tall maître Ndiaye mention moo ñu fekk fépp indaale xaalis indaale ay kàddoom di remonté ñu moral benn instant sax dañu nekkee semi-cotard gars yi dem nañ ba commencé sonn naan affaire yi dafa yàgg affaire yooyu mais c'était pas le discours mooy ñii gëm nañu te xam nañu dañuy génn mun ñu fa woon des ñaan yi bëri na suñu ginnaaw famille sonn nañu taxaw nañu euh, maanaam nit dalay woo naa la gént naa seen génn génn pour te que ni ambiance bu spirituelle bu sympa bu grand moo doon xew ci ginnaaw seen yi waaw ñun nag euh, en tant que panafricain ñu ngi sas le président Ousmane Sonko di ko wax ni ñu ngi ci ginnaaw ñu ngi koy soutenir projet gëm nañ ko te dañuy dem ak moom ba jeex yàgg nañ ci ay ba combat yu bëri moo tax bii jafewul sax trop si ñun euh, dem nañ manifestation manifestation ba sonn kenn jàppuñu mais cette fois si on a été devant on n'a pas fui on n'a pas brûlé on a pas jeté mais nee nañ ñu dañoo ñëw ba si beer ñoom ne leen vous n'avez pas droit dañu gazé bu dee rassemblement ngeen bañ rassemblement yaa ngi garde marché yaa ngi fi lépp ngi fi commandant moomu njëkk a jéem a arrêté beneen flic bi ñëw peut-être Abdoulaye Faye maa ko jàppoon ndax bu ma jógee di wax ak ñoom la toog sama ginnaaw Abdourahmane Touré ñëwul ñun ñëpp maa leen jàppul ñu ñëw ñu jàpp ñu leen allez résister wu ñu xeexu ñoom ñoom parce que man jàpp ma ni combat bi c'est nous contre les flics ñun ñoom ñoo bokk lépp du ñu nag magistrat yi ñi leen di defloo ñun ñooñu lañu amal affaire te du ñoom du ñu jàkkaar ñoom toujours ñoom dañuy dem uti ay armes ñëw suñu kanam ngir utiliser police utiliser magistrat yi te waruñu ko nangu loolu dafa war a jeex dikk kenn faaleetu ko central kenn faaleetu ko policier kenn joxatu leen seen orma c'est Macky Sall qui a créé ça te loolu dafa war a jeex waaw en grosso modo daal c'est ce que je voulais dire di gërëm président parce que bu yox yoxi woon bañ tëj ko ñun perte nañ xam nga ma la il a été courageux il a été devant il a été anticipatif te c'est des choses qui nous ont très si biir kaso bi am na ñoo xam musuñu xam Sonko bi dégg ñu wuñ ko parce que dañuy dégg sa tour rek des gens yoo xam seen xel dafa des sax après son deuxième discours non ce gars là il est vrai véridique. gars yi nga xam ne dañuy animé ñu naan non ku def loolu du am bii sérénité du mën a am munul am bii fit amul loo yàlla nag mi ngi si ginnaaw mi ngi si moom Sénégal yàlla mi ngi ci ñun. dafa bëri yàqu-yàqu man découvrir naa si biir kaso bi ay suñu yëf des chaînes yoo xam ni musuma xalaat ni am na Sénégal théâtre yu ñuy teg yu vulgaire. góor ak jigéen c'est extraordinaire man dama ne man nekk moom Sénégal quoi du ma seetaan télé du seetaan yenn chaînes yi internet lu ma am falaa koy partagé falaay gëstoo mais des gens ignorants qui restent dans ça bu ñu jógee suñu yëf pendant deux heures trois heures de temps ñu dem treize treize bu nga xam ne day teg ay musique Sénégal ak Guinée loolu la ñu nekkee ci kaso bi mais quand on est venu on a on peut changer le rythme bu ñu julee timis ba pare dañuy enchaîner géej bi parce que loolu moo fa am ñu ngi ci doon beneen tamit moo xam dagal na am dagal parce que ñu ngi noonu. waaw te bu ñu bu ñu bu ñu dañuy dañuy dañuy dañuy suruxal foofu benn waxtaan. bu ñu julee timis ba pare dañuy suruxal foofu benn waxtaan occupé leen benn quinze minutes 30 minutes wax fa suñu idéal suñu gëm-gëm. waaw travailler daal bu booy bëri nag dañoo adhéré ci cause bi te te xamuñu woon kuy Sonko. yal nañu yàlla defal ndam daal ba suñu Sénégal changé Afrique joxe ci xasida moom bible la yore bible moom bible la yore ñun yor na Coran ñu ñëw ci jeune bi ma ne ko ci bi la ñuy génn génn kii nii mu ngi nii toog waa ji serein moom bible bi ma man maa wax ni euh, mais gars bu leen am problème de toute façon dañ génn avant cinq heures Edouard ne ma yow ban date nga joxe ma ne ko cinq heures la ñuy génn mu ne waa baax na continuer di wax rek ñu xëy àjjuma vendredi journée bi mu topp nii ñoom ñoom laay Ablaye Seydou Ablaye Seydou saa waay gàddu moom ndax fekk na paquetage ba moom métti na métti moo xam ne jéexal naa na damaa jéexaloon moom mënatuma ci dara waaye yow yaa war a doxee nii yow yow yow Ousmane lu taxaw yow yaa war a doxee nii ne ah man de damaa sonn mu dama léegi dafa am lu ma bëgg expliquer jàpp leen tey leen tey ngay génn da ngay war loo xam ma ne ko mbaa da ngaa bi mu génn bi dama tey ngay génn ci àjjuma jooju maa ngi jaajëfal ñëpp jaajëfal parti bi tamit man dama gis ne président bi daal dafa dafa nekk opportunité gis naa loolu foofu parce que malgré difficulté yi mais dafa mel ni école Pastef dafa baax dafa mel ni Pastef dafa dafa dafa dafay choisir ay ay ay ay militants li fi difficulté fa amoon ñi fa nekkoon dañ ko transformé en opportunité parce que chaque fois bu ñu génnee cours cours mooy comme nañu nekkee classe yi gën récréation ñu nekk génnee ci cellule yi am deux heures de temps pause pause boobu noonu dañ ko doon massifier ñi fi nekk nañ ma seet nee naa depuis Cap Manuel jógee foofu dem Sébikotane ba fii Rebeuss fii nii prisonniers yi yëpp nekk foofu yëpp xam nañu Pastef te kenn ku ne koo koo koy waxtaan ak moom mu ne su ma la su ma génnee Pastef laay def day jënd carte damay voté ko loolu mën naa ko teewlu loolu mën naa ko teewlu loolu loo xam ne lu positif la parce que yàlla bu ñu lay teg dara tamit bu la bay négatif boo nekkee ci biir da ngay seetlu lu bon ni profité ji def leneen loolu moo fa amoon nag vraiment maa ngi jaajëfal ñëpp parce que dañuy may dañuy may am soo kaay tamit. waaw parce que moom bokk na ci salaamaaleykum. maa ngi nuyu maa ngi nuyu président. gis nañu taxawaayam bu baax a baax ñu ko ci jaay. doon gis moom mooy taxawaayu Cheikh Anta Diop. bu mu taxee woon ci Sénégal taxawaayu Mamadou Dia bu mu taxee woon ci Sénégal. pour ñoom gisuñ ñun bu Ousmane Sonko la ñuy xeexal. ñun projet bu Mamadou Dia yoroon. ñun ñun projet boobu noonu dañu gis Ousmane Sonko de ce fait que ñun ba ñuy jàppee amuñu dara lu ñu métti ñooy yaakaar ñun ba bal ba ñoom bal jooju njaay ñu leen jàppee ñun noonu la ñu jàppee parce que d' abord on est des révolutionnaires c'est on croit à à une révolution ici au Sénégal te gëm nañ ko lool ba nga xamante ne ñun waa FRAPP ICAT ma ak couleur googu ma nekk coordonnateur ñun ñii ñu ngi fi nii ñii nii booy yi nii léegi ñaar ñoom yëpp.

nga taxawal ko tey. yëkkati leen ko si kaw. yëkkati leen ko waaw mu ci góor C'est très réussi quoi. C'est maa ngi bëggoon wax lenn mooy étudiants koo gis ci engagement yoo xam ne étudiants yoo xam ne mosuñoo def grève mosu bourse bourse sax taxul ñu tax taxul ñu génn ñoo xamante ne étudiant pacifique lañ leen doo wax ñoo xamante ne seen yoon nekk si dara combat bi nag ñoom laa gis ñuy génn étudiants ñu mus a génn loolu nag gis nañ ci satisfaction parce que gis nañu révolution bi am na fu mu leen toll te loolu noonu loolu rek yaa ko waral parce que yooyu yaa yooyu lu nekkoon si ñoom loolu nelaw si ñun yooyu yaa ko déclenché te loolu noonu projet boobu noonu ñaan nañu yàlla heure ba nekkee président ngir yàlla sàmmal ñu suñu projet parce que am nañ si yow yaakaar ñun étudiants yi parce que da nga gis étudiants ñoo xam ne dañuy jàng ba master 2 ñu am ñoo xamante système bi teg na leen kidnappale leen kidnappale leen boo xamante ne ñoo xamuñu fi leen jëm jàng ba pare doo xam foo jëm ñun ñun dañoo am gëm-gëm si yow gëm si projet bi ñun lu ñu def nii ñu ñu nekk prison yi ñun yëguñu si dara parce que la lu ñu ko defee duñu ko defal ngir Sénégal defaruñu ko ngir Ousmane Sonko mais dañoo def ndax projet bu Ousmane Sonko def yor moo tax ñu def ko en tout cas lay sant di la gërëm di sant tamit ñi nga àndal comme Fatima benn tali ak Maram mel ni ba xamante ne sonn na si ñun lool bu ma génnee sax moom naa njëkk a woo mu ne mbaxam sonn affaire bi ma ne ma non maa maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax a baax. te projet bi def nga si ñun loo xamante ne ñun ba ñu def ba ma demee chambre 2 billaahi wala chaque jour damay def discours dama dem ba ñu jox ma chef sax. <laughs> ma ne nu de. par exemple <laughs> dama def ba ñu jox ma chef de chambre loolu yëpp yaa ko waral a que yaa ko def si ñun. yaa yéelu loolu nenam si ñun.

gërëm ñëpp wax leen suñu kontaan seen suñu suñu contentement euh, wax ni mbir mi comme je l'ai dit du projet Pastef kese dafa dépassé Pastef li ko firndeel mooy Fatima mii yéen ñëpp a koy tudd mais Fatima du membre Pastef te mooy sama secrétaire Fatima yoonu askan wi la bokk ci parti politique bokk ci FRAPP ci mouvement citoyen mais bokk gis-gis bu ñu bokk ak ñooñu ñëpp moo tax ma mun koo jël def ko sama assistante am confiance ci moom. c'est la même chose ñoom benn talet mii nga xam ne frappe la ñu bokk nekkuñu Pastef keneen ak keneen loolu bëri na jonction boobu nag a commencé am parce que li gars doon réussir mooy fexe ba gëmloo ñu ni dañoo war a tàqali ko ñoo bokk gis-gis ñoo bokk lu ñuy xeex pas à 100 pour cent 100 pour cent amul. mais li ci ëpp bokk ñoo ko bokk waaye fexe nañu ba séparé ku nekk di méfié wu ci ka ca des. loolu la ñu war a jeexal léegi. Sénégal rek moo am solo li ca des nag wax na léegi étudiants yi vraiment je rends un vibrant hommage aux étudiants. étudiants yi université yëpp nag Dakar Saint-Louis Bambey Ziguinchor Thiès ak fépp ba ci université virtuelle que c'est une chance de voir que étudiants yi comprendre nañu suñu message parce que étudiants yi ñooy changer réew catégorie boobu jeunesse bi moo koy changer mais daf ci am rôle bu bëri boo xam ne ku nekk tey ci niveau statut étudiant ñu yaakaar ni dans dix ans war nga exercer des responsabilités de premier plan wala sax dans un an ou dans deux ans su dee ñooñu ñoo comprendre tey dañuy dellu sant yàlla di leen massawu ñoom it parce que li ñuy dund métti na. ñu de suñu jamono déjà université xawoon na jaxasoo mais li may gis léegi dem naa ni su doon jamono ji laa ne étudiant bàyyi naa bu yàgg donc ñu ngi leen di bu baax mais li leen wax nii il faut toujours ab avoir de l'espoir réew waa réew maa koy changer ci kaw ñu gëm seen bopp bu ñu kenn gëmloo ni dañoo war a démissionner ñun ñëpp découragé gëm tam tant que nit a nga koy am espoir kooku mën na continuer dund parce que l' espoir fait après espoir bi newul ni xeexoon nañu en 2012 ba foog ni mbir mi léegi saye ñi ñoo am déception donc dootuñu xeex déedéet ba baa ñuy am lu ñu bëgg dañuy xeex bu Ousmane Sonko ñëwoon daa di def safaan lu ñu doon xaar ci moom dañu war a reprendre xeex ba ci saa si te waratuñu toog sax di may nit naan bon mi ngi nañ ko may nangam nangam un an deux ans cinq ans muy yàq di yàq di yàq il faut mu am un contrôle citoyen permanent ça veut pas dire l'anarchie ñun ñag bis bu ne ma wax ko ma dellu waxaat ko bu soobee yàlla bu soobee yàlla ñeme naa ko wàdde mais nit da ngay bàyyi yàlla pour am bu soobee yàlla liy décevoir sénégalais du jóge ci ñun amul dara xam ne lu ñuy ut la pour ñun soxlawuñ ci xaalis su doon loolu am nañ ko ndax ba léegi ñun ñuy biis suñu nangoon ñu bëri am nañ ko te dañuy toog di am problème bu dépense man damay toog ñuy couper sama courant billaahi wallaahi wa taala damay toog ñu couper sama courant couper sama ndox ñuy amay problème yoo xam ne soo ko waxoon Sénégal yi duñ ko gëm te booba ba jamono jooju su ma leen su ma leen siiñoon tuuti ñu jox may milliards donc xaalis taxu ñoo jóg ñaan nañu yàlla dugg suñu kër suñu njaboot war ko lekk na doon lu lew lu ñu ñàkk tur taxuñoo jóg bu ma génnee ci mbedd mi ñu ne sonk sonk ku nekk damay photo man ça me gêne parce que yaruñu ma ci loolu man ci discrétion lañ ma yar kon lenn rek moo ñu tax a jóg ñun Sénégal gii lii du yoon li fi nekk amul leneen luñ ciy wut waaye nag toujours ma wax ko mbir mi du Ousmane Sonko mbir mi mooy équipe masse critique loolu lay soppi réew buñ ko jaar xaare rek ci Ousmane ko mooy moo tax ñu commencé ko tey jii dafa baax lii épreuve boo xam ne permettre nañ ñu tester suñu patriotisme ñun ñëpp Abbas Fall wax na ko Macky Sall nous a rendu un grand service daf ñu permettre ñu tester suñu patriotisme ba fan la ñu mbir mi jaral réew mi ñi seen bakkan rot woon nañu jaral nañu ba foofu te kenn ku ne mënoon na doon ci moom ci ñun ñi ñi ci dem kaso même chose ñi ci ci dagg seen loxo wala seen tànk même chose te ne serait-ce que pour la il faut impérativement que projet bi aboutir parce que hommage boobu rek lañ leen mën a laal li ma waxoon gars yi lu mu leen jaral dañu jaral lu ko loolu du tekki fitna waaye nag doo yor dëgg mu leer dëgg nga yow ngay yox yoxi ci mbedd mi bi yambar yambaru ba ki yorul dëgg ñëw jaay la doole loolu ñun amuñu droit boobu ne serait-ce qu'un hommage ki ci gën a tuuti douze ans la am douze ans kooku ñun est-ce tey am nañu droit trahir loolu dañ ko dañ ko layoo yàlla suñ ko defoon kon tey nous n'avons pas le droit mais mu doon une responsabilité partagée kenn ku ne ci ñun doore nañ ko léegi lii épreuve la woon test la su suñu jógee ne dañu dem vacances agricoles épreuve la parce que loolu luñ ci bëggoon wane mooy ñun one près à se sacri def pour suñu réew mais pas toog rek di xaar réew mi defal suñu nee don de sang noonu la modèle sénégalais boobu la ñu bëgg a delloo si du ma ne modèle bu bees de ndax amoon na suñuy maamat dañoo ndax ba fexe ba yàqu ko modèle boobu la ñu bëgg mu dellu te tous ensemble on va le faire bu soobee yàlla kon ñu ngi leen gërëm bu baax am na nag ay euh, waa diaspora ana Omar defe naa ci saa si la ñu ko am loo xam ne euh, lu ñu. ñëw ñëw ñëw lu ñu yóbbante la. waa diaspora ñoo yóbbante. nee nañu nee nañu lu ndaw la waaye ci saa si lañ ko def. pour euh, xam naa. je suis de Pastef diaspora. voilà Omar Konté Pastef New York la nekk daf ko fekk. kenn mënu ci yokk dara. donc ma ñoo li ma sow bu baax loolu mais. c'est quelque chose quand même. Donc au nom de Marie-Jeanne Diouf, qui est coordinatrice de PASTEF New York, on a collecté cette somme. bien ko ji. man lañ ko jox nag. ah. ci jamono ji ma ko soxla. am naa ne nag yéene ngeen ba lépp. maam daal am naa ne gars yéene nañu ba lépp. ah ah wala di moom. man maa mel ni li ñu bëgg a rek kanam rek. si ma ñëwee président la rek. bokkoon si ñi jàppoon bi ma gé bi ñu génnee bi ñu bàyyee maa doon def conférence de presse bi ñu bëri ñu mooy tooñ naan ma El xamoon nañ la boo génnee doo bàyyi xeex bi du question yëkkati sa bopp wala yenn affaire yi waaye dafa am loo xam ne nii dañ ko gëm ah ñun ñëpp ñu am lu ñu gëm am ñu fi waroon a teew. xam na amuñu temps am na ñoo xam ne nii seen wàllu wér-gi-yaram dafa am koo xam ne nii muy tàmbidu xam naa ne ñu bëri war nañ ko xam yaram mu sutante ba war a def benn opération mu waxoon ma ko ma waxoon ko Basirou Diomaye euh, Faye mu ne ma dina ko woo jour boobu bi may ñëw maa ngi koy woo mu ne moo ngi seen kër looloo waral comme ni ñëpp teew nañ il faut ma yëkkati ne leen am na ñu nekkoon suñu biir am na ku ci tawat ku yaram sutante ñi bàyyi ko xel euh, comme yaramam sutante na te ñun ñëpp Euh, am na lu ñu bokk il faut ñu xalaat ko moom tamit ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér di jaajëfal ñëpp jaajëf Fatima au nom Voilà. Jërëjëf. ngeen ko yow mooy sa affaire ah.

trois groupes trois groupes waaw waaw dañuy def nii. waaw waaw